عسير يسير بي الجسد الذي غادني لا كريم علي معلوم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نسوري وتايدي ويسير الرداء من الله حبيبي لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبيد أجاب كثير ينكافي به من أزرنا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي سوائل بكوني عبد الله وهو السيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهم الستور بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وقصور قصوري خلت والأهل عني تفرقا لمدي الذي عنه المدين خسير خلاص sant leen gërëm yéen ñi ma fekk fi yëpp xam nga maa ngi dëkk ba Touba xam nga xaw moo sax tax daan dajam déet mais gis suñu borom li muy def rek man Abdoulaye Sylla mi parce que man Dakar laa nekk bon moom mm, sanca mi ngi sanca mi ngi jam ñaajo mais daf ma loué location sama camion giri fa laa nekk ah, man màggal naa parce que quatre ans chaque année xar laa rey mais bi ma nekk ci moom ren laa def ci moom trois mois nagu deux cent quatre-vingt-dix mille laa yeew ak xar kon yaakaar naa kon Abdoulaye Sylla kon moom li muy liggéey ñi ñi ci gis suñ bopp wallaay keek sur bi muy départ barki alxuraan sax ma sama doon daw man maa taxaw arrière may gars yi camion yi taxaw ñu sol gasoil bi muy génn sax man maa ngi filmé wallaay si lu rafet camion yëpp jóg machine yeeg benn yeeg ñëpp jóg gars yi départ def koofan ñëw Touba mu nekk rafet wallaay la xasim koy ñaan rek moom li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla may wallaahi benn suur ñi ñi ngi toog fi ñu xeen di liggéey mais dañu toog am yàgg quoi ñu toog noonu quoi ci côté vingt personnes lañ quoi ñu Euh, comme quoi ñu toog ni ñooy léegi dañuy waxtaan quoi pour man Abdoulaye Sylla bu nekkoon tey euh, ci réew président ni mu demee ñuy waxtaan quoi après ñuy fonoon naan Abdoulaye Sylla ñu ngi mu nekk président xam nga affaire yooyu ñuy toog di waxtaan yi yàlla xam boobu man sax ndax lii dina am barki Serigne Saliou xamu woon sax mais wallaahi man man ma gis man ci ak li ma gëm bu nekkoon tey ci réew mi barki Seydina Mohamed xale gu lépp gis seen bopp ndax man 3 te woon dem mais gars yi xëy leen la xëy mais li ma ci am ci moom ba léegi maa ngi toog ñu sama poos moo tax ba léegi dama dama guma Dakar barki Serigne Saliou Abdoulaye Sylla billaay wala man da gis sama bopp baax a baax a baax même même sax ñi may àndal dañuy gis seen bopp ñi xëy man man maa fa xëy trois mois ñu ñëw ànd man ñoom dañuy gis seen bopp wala wasim

mu ne nawet bi ñëw na su ma neexoon tëj chantier yi mais du ma ko tëj ndax dama la bëgg may xaalis moo tax su ma tëjee chantier yi du du nga am loolu yóbbu seen kër hmm. barki sëy dinaa ko tëj ndax nawet bi liggéey demul noonu hmm. mais su ma ko tëjee du nga am loolu loolu moo seen kër hmm. dama la bëgg may xaalis moo moo tax ma bàyyi chantier mu continuer barki sëy dinaa xam lii la wax sur boobu billaay mu ne ko rafet nag billaay kontaan naa ci santaat euh, waa gox bi yëpp waa Mbacke baari ñi nga xamante si ni waa c cinquante dañoo ñëw fii fas yéene ànd ak waa Mbacke baari ci àndin wu rafet ci àndu dëggu ci andu jàppalante nga xamante si ni président Abdoulaye Sylla mooy yónnee jaarale ko ci jëmm ji nga xam ne mooy Serigne Saliou di rakkam kon C50 doon lu am solo doon lu am maanaa tey wëlbatiku doon lu am personnalité tey ñu nit ñu fas yéenee ànd ak moom ci gox bii di Mbacké Bari ak Baxdaad ba ci biir Mbadianeen fas yéene nañoo ànd ak président Abdoulaye Sylla ngir ba li nga xamante si ni moom la bëgg di président. de la république ñu ñaanal ko ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala teg ko ci loxoom ndax it doon na jëmm joo xamante si ne jëmm ju baax la doon na jëmm joo xam ne mi ngi dox ci social doon na jëmm joo xam ne jëmm ju labir la tey doon jëmm joo xam ne tiitaroowut kenn ku dul Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tey li muy wax dane man bala ma def dara di tàmbali dama koy tàmbalee ci dëkk bi nga xamante si ni mooy sunu dëkk te moom dafa feer ci Touba nga xamante si ni mooy dëkk Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu a lépp lu muy tàmbale fi koy tàmbalee kon nag sawar nañoo jug toujours ak heure bu mu ñu soxlaa rek ñuy ànd ak président si la c cinquante nga xamante si ne dañuy fas yéene fu mu jëm ñu ànd ak moom rawatina mbakk Bari gi nga xam ne fii la jógee ngir ñu tàmbalee fii. ndax euh, Ablaye ñun euh, euh, bu nu neexee sañ nañu taxaw présenté wu fépp na xam ne Ablaye Sylla ku nangoo jëfal sëñ Tuubaa la te it ku nangoo jëf ci yoonu sëñ Tuubaa la ndax it rawatina jëmm yi nga xamante si nii. mooy kilifa yi nga xam ne waa ahlu Mbàkke waa ahlu Fall ñëpp Ablaye Sylla xam na nu ko ci jëflante boo xamante si ni Ablaye Sylla bu màggalu Touba jotee lu mu am ak lu mu amul lépp yëkkati na ko indil ko sëñ Touba kon nag rawatina jëmm ji nga xamante mooy Saliou di rakkam Ablaye Sylla yónni na ko ci Serigne Abdou Karim mbakke keroog ba mu ñëwee waxtaan na ak sëriñ bi Serigne bi waxtaan na ak saaliw te it mi ngi bàyyi xel Ablaye Sylla kon nag li ci xew ba xew ci mooy Ablaye képp ku ko jàpp ci yar nga ko jàppee. képp ku ko jàpp ci ay teggin nga ko jàppee kon nag Abdoulaye Sylla dañ koy ñaanal saa borom suturaal ko te sa borom jàppale ko mi nga xamante si mooy borom yërmande yàlla na ko suturaal ba nga xamante si ni président de la république bi nga xamante si moom lay ñaan yàlla suñu borom doon ko yàlla na ko sëñ Fallou teg ndax sëñ Fallou moom doon na koo xamante si nii ku mu ba teg la ci place ñëpp dañ la teg place te it naa sëñ Touba képp koo xam ne yaa ngi takk ndoom may tànk rek sëñ Touba nga ko yaakaaree te moom léppam jox na ko sëñ دليلا به الناس صدور غبور لولا

ba tax na bi ñuy tàmbali dañoo dem Mbàkke yi seeti fa ay mbokki taalibe ak suñuy maire yi mbootaay yi nga xam ne ni ay porteurs de projet lañ bëgg a jàpp ci mbir yëngu-yëngu yi ñuy nekk jàpp ci club bi muy ces cinquante pour cent de préférence nationale muy liggéey boo xam ne nii waa Touba yi moom lañ koy liggéeyal en particulier président Abdoulaye Sylla di ci def lu lu lu doy waar lu lu am solo ba tax na biñ paree proximité yi ci Mbàkke yi ak gox boobu yëpp ànd ceeg équipe bii nga xam ne nii duñ tàyyi duñu sonn guddeeg bëccëg ñi ngi ci liggéey bi di ko wëyal ñu ñëw fii ci Looyeen jàpp usine glace ci biir Touba déclenché fi benn opération bu ñuy wax bu ñu tuddee opération taal làmp yi ci Touba ci ruq-ruqaat yi nga xam ne nii làmp yi ñu fa installé woon lu ci mel ne piil yi ci kaw làmp yi dafa lakk club c da ciy indi ay solution immédiat yoo xam ne nii dinañ ko tax dinañ ci tàmbali suba incha allahu rabbi ak ay technicien qualifiés ñu jéem di ci ñoŋal liggéey bu am solo fépp fu làmp nekk ci gox-goxaati Touba yi sama maire mbootaay yi nga xam ne nii activé naa cellules yëpp nañ ma xaar maa ngi ñëw recensé làmp yi nga xam ne ne yàqu nañ ci ci gox-goxaat yi ci bépp Touba ñu indi ci ay solution yu immédiat fépp fu ñu fi dem dinañ ànd ak équipe bi ñu recenser lampe yi le lendemain technicien bi ñëw changer lampe yi incha allahu rabi ci jàppandalu yàlla suñu borom ñu leen ciy woo yéen ñëpp sama cellule yëpp usine glace corniche daara jolof kër Baye Laat kër sëñ Modou Mbacke baari ñaari brak euh, nu mu tuddati euh, Tindodi fépp fu cellule c cinquante nekk ñu ngi la ciy woo. janatul maxwaa fépp sura baxdaat daaru xudóos guy mbind cellule C50 yëpp seen responsable yi ñu ngi leen ciy woo ngeen xaar ñu buñ jullee timis ba pare danañ ñëw recenser lamp yafa yàqu yëpp bu soobee yàlla ci njàppandu yàlla suñu borom ñu changé ko dans les règles de l'art incha allahu rabbi jërëjëfati Serigne Touba.